booba jóguñu ci loolu. yow soo xalaatee loolu am na yeneen ñu gis ni euh, dialogue bi aboutissement bi euh, bokk na ci euh, ñu tëggaat li nga xamante ni moom moo di. processus bi comme ni nga ko waxee. fexe ba indi ay coppite à l'Assemblée nationale oui. dëggaat tëggaat élection yi fan lañ koy teg. ah maa ngi ñëw. Eh? xam nga yow da nga joxe sa gis-gis bi nga am ci finalité dialogue bi ma ni la yow boo ci amee boobu gis-gis am na ñeneen ñu jàpp le contraire cest à am na ñeneen ñu jàpp ni finalité bi tey jii bokk na ci ñu tëggaat processus bi euh, indi ay coppite ci code électoral bi yóbbu ko à l'Assemblée nationale ñu voté ci ñu voté ko dugal ab loi d'amnistie ku mel ni Ousmane Sonko mun cee jariñu ak ku mel ni Karim Wade de ce fait processus bi ñu ko tëggaatee moom Ousmane a bokk puisque coppite yi ñuy indi ci code électoral bi dina dina euh, lui sera euh, bénéfique ñun laajuñu ko Malick wax na ko te mooy porte parole lu Pastef ñun laajuñu ko loolu ñun askan wi laa wax d'abord après ma ni ñun Pastef laajuñu ko loolu xam nga li ñu ko wax calendrier bi na ko respecté. mais laaju leen ko ko mais moom dégg nga ci waxam mu ne dafa bëgg dem bàyyi fi réewum jàmm. mais moom bi muy ñëw bi muy ñëw su xamee ni su fekkee ni leer na ko ni jàmm jooju pour mu am il faut que mel ne Ousmane Sonko ñëwaat ci ci ci langue gi. Penda tey lañ xam Ousmane Sonko tey lañ xam ni Ousmane Sonko mooy sapeur pompier wala démb lañ ko waroon a xam mais nañu nañu bu ñu yàpp askan wi nag mënoo taxaw démb nga ne Ousmane Sonko moo fi yee fitna moo fit moo taal senegal tey nga wëlbatiku ne mooy indi jàmm ci senegal wax yooyu ban moo ciy dëgg ah maddun wa zammun fi makanin waahidin min waahidin li waahidin ajabaani arab daf ni tey ma ni pend mi ku baax la suba ma ni pend mi ku bon la <laughs> mais nañu seet man maay kan man miy wax. mais mun na changer d' avis. non déedéet nga xamante ni ñoom ñooy dox nga xamante ni ñoom ñooy dox jàmm ci diggante bi moo lay dëggalal ñi nga xamante ni ñoom ñooy dox jàmm ci diggante bi mun nañ tax mu am ci beneen. kan kan moo dox jàmm. loolu nag mooy erreur bi nga xamante ni mooy erreur bi gën a ngande président Ousmane Sonko yónniwul kenn kenn personne muy dox jàmm bañul jàmm nag waaye dox jàmm dafa am fu muy tegee doo fekk xale bu tëdd nga war ci kawam di ko xoj di ngàdd. ñu ñëw naan xale bi xale bi di yuuxu pour ku ko wallu nga ñëw naan xale bi noppil bàyyi ki yëg ci koom. lu problème bi yàgg nañ koo wax mais imam déglu nga keroog président li mu wax. mu ne. dé déglu président li mu wax bi ñu ko laajee ci wàllu dialogue bi bi ko laajee ci waxtaan gi entre am mu am bi am. dialogue dialogue xam ak kii Sonko. xam nga dégg nga li mu wax. waa ma ni am na ñu nga xamante ni ñoom ñoo ko ñëw seet dafa am lu jiitu loolu waxtaan ak moom ci wàllu wu ni mel. déedéet déedéet dafa ni dafa ni sëriñ si ak yenn kilifa yi ñëw nañu wax ma ñaan ma mais bokkut ak nag li ñuy bëgg a dugal ci bopp nit ñi. waaw léegi li ñu wax li non xam nga li ngay wax ak li may wax lu tax mu nekk différent mooy dafay mel ni ki sëriñ si ay missionnaire la ñoo xamante ni dañu dem ci président dem ci son ko su boobaa dañ naan négociation am na ci biir pale bi wala am na ci biir. fa ñu tëj Ousmane Sonko. mais dama la bëgg a wax mais loolu mais loolu même su fekkee yàgg nañ ko rumbalaat laata même taskatu xabaar yi. waaw maag yow a ànd mais dégg nañ sax ku mel ni Cheikh Yérim mu mu mu mu confirmé waat. non non non non nee waxtaan am na dëgg-dëgg seen seen diggante. non kooku am na ñoo xamante ni ñoom ñoo jiitu woon sax kii di Atepa ak Alioune ci dialogue xam nga xam nga soo ma laajee Atepa soo ma laajee Alioune Tine ma mën la ci wax parce que am naa lu ma ci xam soo ma laajee Atepa d'accord wax na ma dégg ma mën a wax ni indi la li mu wax ma dégg li ñu wax ñu dégg lañ lañ ci jàpp ñun ou luñ ci jàppul mais vraiment soo bëggee suñu émission jàll moom kooku moom nañ ko teg fële ma nga France ko ma France ma nga bitim réew non xam nga mën na am xibaar yoo xamante ni yow amoo ko mën waaw yooyu na ko denc parce que ñëw na fii toog ci plateau ne Pastef bu ñu dëggalee seen bopp élection yi premier tour ñu gagné ko demaat ci beneen plateau ni Pastef ci boppam kenn mënta gañe kenn mënta romb trente pour cent xaw ma yu kenn xamul nit koo xamante ni tey boo waxee suba nga weddi sa bopp mais kooku duñ la considérer wax yirim wax yirim nañ ko teg fële li ci li ci li ci suma frère bi wax rek moo ci nekk Cheikh Bara Ndiaye saa yu demee ba dagg costume bu bees wala jasner bu bees bu ñëwee daf ay sos yu bees de fait loolu boo demee ba sam réew teg tee ko teg ko sa teg ko ci sa ndodd dootoo waxati lu ñu lay dégg. dama parce que que li ñu mënta comprendre ba tey mooy euh, bu dee bu dee dëgg-dëgg waxtaan jot na am. ci diggante président ak Ousmane Sonko pourquoi tey yéen ngeen. bañ dem ci dialogue ngeen bañ dem ci dialogue bi kan moo ko fekke ak kan moo ko dox. loolu laa bëgg a xam kan moo ko fekk ak kan moo ko dox bu dee Alioune wax naa àdduna wax suba wax bëccëg man dem naa ba toog ak moom te li ma doon def maa ngi ko def ci en tant que nitu diine maa ngi ko def ci en tant que sénégalais ñu dem toog ak moom. pour ñu wet pour ñu dimbale ko ci li nga xamante ni moom lay dox mais moom leeral na ni moom gisul bët jegewul demul ci Ousmane Sonko pend loolu leer na xanaa Alioune Tine nee na bi muy dem pour gisi Ousmane Sonko toog na quatre heures de temps yoo xamante ni dañu mujj doyen des juges la su ma juumul dafay yebal euh, ki yor sécurité am ne ko demal nga ni alin du ko mën a gis Alioune mosul taxaw fenn na jàkkaarloo na ak Ousmane Sonko waa léegi ah. li Atepa wax nag. Pierre Atepa bon li mu wax li mu wax loolu nga dégg loolu laa dégg. waaw mais tekkiwul ne Pierre Pierre Atepa dañ ko yónni dafa jóge ca Macky Sall ñëw ci Ousmane Sonko wax ko Ousmane ko tontu ko mais fi ma bëgg ñu naan ay dialogue wala deal dama bëgg kenn teg ci loxoom ci waat ci yàlla wala mu waat ci kaamil la fan la gisee wala mu dégg ne Ousmane Sonko weccante nay kàddu yoo xamante ni dafa jóge ci président ñëw ci moom wala mu jóge ci moom dem ci président en tout cas même su fekkee ne en tout cas même su fekkee ne li ngay wax kenn mënu ci indi firnde bu leer amul gis nañu juste après lu nu mel ay actes yu nga xamante ni posé nañ ko notamment libéré ñi nga xamante ni ñenn ci ay détenus waaw loolu nag dama la ciy leeralal leeral ci askan wi yëpp xam nañ ko sax waaye du tere nooy gën a demee information yi di gën a wadd ñuy gën a tàngal ceeb ngay gën a leeral mbir mi xam nga loolu lu ko waral Ousmane Sonko bi muy bi muy nekkee ci biti te duggagul woon kaso négociation la ñu waxoon nag ay dialogue toog du dialogue gu génn ko kaso mais leeralal nañ man négocier wu ma du ma négocier ak ki may négocier jël pistolet teg ko ci suma keru nopp du ma négocier négociation boo xamante ni dama ciy gis sama bopp nëbbu ci askan bi dafa am benn vidéo bu mu wax pend bu am solo nee na procès bi procès bi ku ko trahir yàlla dana la alal te maa gëm ni procès bi ku ko trahir yàlla alak bàyyi bëri parce que képp maa ngi ciy ñëw tontu ci képp koo xamante ni xëy nga war Ousmane sonk konteel ñi ko war nga gis ñi ko fi war ñëpp konte leen nga gis kon bu taxawee ni procès bi dañu jaayanteeg suñu borom pour yàlla soppi Sénégal procès boobu képp koo xamante ni dugg nga ci biir bëgg ci indi lëj-lëj yàlla dana la weer bëccëgu ndara kam te weer boobu nag boo ci jógee kenn dootu la considère da nga fay complètement kon bàyyi yu bëri fu mu jógee bàyyi yu mais ministre bi xam nga fii lañ taxaw naan way est-ce que nañ ñu expliquer lu tax ñu bàyyi xale yi te lu ñaaw la pend lu ñaaw la xale yoo xamante ni dañ leen a torturer xale yoo xamante ni dañ leen a agressé ñii ñu leen di jàpp di diri di dëgg ci seen biir yi te li may wax mu ngi ci seen mu ngi ci seen vidéo yi mën ngeen ko gis ñii ñu ñii ñu jàpp leen ñu daanu ñu mbej leen gauche droite jël taatu fetal di ko dóor ci seen digg gannaaw ñii di ay jigéen ñu xëcc seen périg tas ko xale bu jigéen baa ngi sol périg bu meloon ni nii nga sol xëcc ko tas toj ko mbéj wéqu ko mu nekk lu ñaaw mais kenn kenn mënut a rafetlu loolu ñëpp di ñaaw la waa loolu nga def lu ñaaw loolu ba pare ñu wëlbatiku nga xam fi nga xamante ni fala la ñaawteef googu di mujjale mais danga nga jéem a loolu mais Ousmane sonk encore une fois wax nañ ko ne ko président bëgg na la bàyyi soit nga tukki walla lu mënti doon mu ne leen man balaa may wax waxu bàyyi wala leneen négocier wu ma dialogué wu ma defuma amnistie mais li wette woor kaso bii balaa ma ciy génn man est-ce que xam nga fa mu nekk moo fa bàyyi boppam bu ko neexul tey jant du ko fa so ci naka ma parce que tey bu taxawoon nangu li nga xamante ni ñi fi jaaroon ñëpp moom lañ nangu ba balaa ñuy tëdd seen peine ñu libéré leen mais kon kon génn na kaso. bu ñu yeewoon ni mu génn nag bu ñu yeewoon mu génn est-ce que kon da ngay est-ce que kon boobaa euh, li nga wax ni dafay dafay dafay wóoroo ak li nga xamante ni moom moo nekk xam nga que bu ñu yeewoon ni di génn ndax tey génn man du ma ci am benn problème du ci am xel ñaar mooy ni ki ko fa dugal mu ngi wut wàllu te ñi ñu fi tëj ñëpp kon am ne leen tëj leen ñii trois ans ñii quatre ans ñii kenn xamul ñaata at la. parce que soo waxee ni li ko fa bàyyi moo fa bàyyi boppam soo waxee ni soo waxee ni moom moo fa bàyyi boppam. Ah. kon kay bu ñu yeewoon tey ji mu génn kon ce qui veut dire que ni <laughs> bàyyeetu fa boppam waxtaan jot na am ba tax mu nangu génn bu ko tuddee waxtaan wala mu génn bu ko tuddee waxtaan tey ñaara am ñii ma la njëkk a wax dañ leen a àtte ba ni leen lii ngeen def ñuy war a tëdd seen pen lu leen génne dañu jekki ba mu yàgg rek ñu ne dañuy génn mais Ousmane Sonko dañ ko jugé gul à peine Diomaye jugé guñ ko tuuma ji ñu leen tuumaal confirmé guñ ni tuuma jooju nekk na wala nekkul. dëgg waa léegi loolu bokkut ak ki nga xamante ni dañ ko tuumaal fekk lañ ko tuumaal loxoom dugg ba ci biir. d'accord d'accord ñu teg ko yoon ba pare mu négocier pour génn. léegi imaam ndax yéen ñi nga xamante ni yéen a jege Sonko. Euh, bokk également ci di soutenir la candidature de Diomaye. oui ndax tey ji euh, seen ñàkku bëgg toog ak Macky war na tax. ba ngeen ci influencé ñeneen ak ñeneen ku mel ni imam Dramé démb gis nga kàddu yu mu yëkkati gis-gis mu am ci dialogue bi président invité ko moom personnellement euh, man gis naa enveloppe d'invitation bi président daf ci def imam Dramé chef religieux kon moom souligné wul sax appartenance politique am. Mhm. li mu nekkee chef religieux moo koy intéressé ba tax ñu invité ko si dialogue ba mu ci defee sorti wax ci li nga xamante ni moo bi gis-gisam. Mhm. jàpp ni dañoo war a dem wuyu ji ci boobu la dialogue gis nga. attaques yi nga xamante ni yëpp am na ko. ba sax mu def ci ab vidéo rëccamtiku. ni euh, mu ngi euh, delluwaat ginnaaw te di xam li président que ni parti bu mu bokk ñoo bëggul mu dem bokk ca boobu lay jëla kon finalement du du ca mën a bokk. Mm-hmm. loolu looloo waroon a njëkkee gis nga boo bokkee nit benn mbir sama xarit la mu ci biti maa moom a fi tase. mais yéen bëggu dem kay moom bëgg na dem pourquoi ngeen war ko xoxotal ba tax